ok Bo Diaw kan mooy Bo Diaw ah Bo Diaw benn artiste la boo xam ne am ci banlieue bi la juddoo Sénégal màggee Sénégal Dakar yaroo am chance su def nag un peu quelques voyages euh, pour jéem a yaatal son répertoire musical ba tey peut-être xëy na ma am ben genre direction artistique bi di mën def pop music di mën def reggae di mën def dancehall je mën a aussi euh, toutes sortes de musique bi nga xam ne sentir naa feeling mais euh, doomu Pikine la doomu Sénégal la mais dëkk fii ci je suis ñu Canada depuis like euh, more than ten years all right. bon le parcours musical de Bodiaou. En fait, euh, je peux dire que je suis quelqu'un qui, aime beaucoup la recherche et la créativité. Donc, du coup, quand j'ai eu la chance de commencer à voyager, euh, de mon c'est quoi la musique que font les Jamaïcains. Je suis parti en Jamaïque trois fois. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer les fils de Bob Marley, Kay Polton, euh, Sizzla Kalanja. Et puis, euh, si je connais Luciano, le premier le opening act, c'est là que Luciano est au Sénégal. À l'autre ba mom sa xaritu baba mal expliquer ma sunu culture donc je voulais savoir un peu euh, la direction artistique des Jamaïcains reggae dancehall et aujourd'hui ça m'a beaucoup apporté après ça avant ça j'étais parti à Cuba Varadero j'ai fait la Havana pour xam aussi leur culture du fa aussi euh, Brésil j'ai beaucoup aimé parce que je suis allé la capoeira et c'est là j'ai découvert que ni capoeira sunu et Angola la donc cela m'a donné un peu aujourd'hui quelque chose pour Mon en grosso modo de ce que fait Bojao. afrobeat folk euh, world music euh, pop music Inshallah, mon année naa euh, parcours et j'ai fait quand même pas mal de festivals ici à Montréal et un peu partout ailleurs et j'ai collaboré aussi avec pas mal d'artistes internationaux Wow! Wow! Wow! Akon Akon shout out to my brother Akon Akon much love um, je respecte beaucoup Akon hein? Akon il a mon respect parce que he build his own empire um, te tey bu ma déggee euh, journaliste yi naan peut-être damay dépasser icône wala loolu dama koy jël comme privilège rek compliment la parce que xëy na ah, euh, journaliste yi dañuy bëgg ñu am yeneen icône dañu bëgg ñu am yeneen icône ba pare dem fu icône demul sax at least so but we can do better than icône incha allah ñun dañuy dem foo xam ne icône demu fa we don't wanna be icône dañu dañu man bo jaw la tuddu te euh, incha allah dinañ def lo xam sax Akon defaguko right mais euh, Shara Touba brother Akon mu ngi def liggéey bu nice euh, ñu ne ñu ngi suñu yoon xam nañ suñu bopp xam nañ ki ñu doon te inshallah can handle it respect. dima <laughs> sama gars yéen mooy bëmëx de Adji Ouza Adji Ouza Adji Ouza c'est ma sœur c'est une sœur bo xamante je la respecte beaucoup bon peut-être euh, sunu photo vidéo ñi nekkoon en 2014 2015 le peut-être la nit ñi gis yaakaar ne y a une relation ah mais non non non Il euh, y a rien de de spécial entre nous sama xarit la sama jigen la ba paré nit ku mën limuy def la bëgg lu muy def amna na ful la respecte na boppam

waaw tey posé nga ma question bu ma neex parce que kooku suma doom la day jaay bànneyaa man papam la bi ma ko papam di déjee naan maay bàyyam boobu nday jaay xamaguñ ko sax euh, papam di sama xarit ñu naan ko si Sissoko mu bokk famille bu baax je répète Ndeye Ndiaye Banaya man maay papam te Ndeye Ndiaye Banaya famille bu baax la bokk ay baayam ak ndeyam ndeyam moo gën ci yaay Elle a, une, elle a, elle a, elle a un maman extraordinaire. Donc, nit ki nak jar jar dafa am ak aussi tomber ci jamono bo xam ne dafa xew di wone mais ñun ñëpp amna na lu ñuy nëbbu donc tay buñu feñalon li nga xamanteni tay euh, mo nek ci kanam wala lu ñuy nëbbu euh, dina doy war de non la démé mais kok suma dom la wa xam nga rek gaay mom lu leen neex la ñuy dañuy wax rek

Euh, nit ku baax koo xam il fait beaucoup de choses dans l'ombre boolewul la dara ak ay wax yu bëri liggéeykat xam ki mu doon xam fi mu bokk donc suma xarit la suma grand frère la et on a beaucoup collaboré ensemble et toujours c'est un plaisir parce que man dama ko yàgg déglu yàgg ko respecté donc tey c'est un honneur am chance di partager avec moom yeah je suis très très content pour ça euh, Nous Numukunda Sissoko grand nous nomu sama xarit un artiste aussi hors pair un artiste hors pair nous ko kunda Kounda soxo mu am talent mën lu garder la culture qui est un patrimoine pour nous donc respect Numu kunda on a beaucoup de projets ensemble récemment mu fi won def nañ ay yu yo xamné et on a une tournée aussi dinañ ko accomplir super. Eh, eh, eh. Youssou Ndour est-ce qu'il y a un autre roi du mbalax wa lol question bobu mom mom mom roi du mbalax ju dougul Sénégal hein non non non y en a pas encore Youssou Ndour c'est une légende et ñun dañu am problème en tant qu'Africain ñun dañuy dañuy tabax dara après ñun ñoo yàkkamti toj ko Youssou Ndour légende la Youssou Ndour li may djegina aduna te ko kay xam nga genn à l'extérieur du pays donc y a pas photo à Youssou pour le moment sama rakki dama len di encourager ne len nañ continuer job ñu ngi def lu rafet mais nañu liggéey bu baax parce que à part yu Ndour gisuguma fi benen benen benen artiste bu ñu di woyé roi di mbalax yeah 100 to be honest yeah uñulul da nga conseiller les jeunes artistes sénégalais Oui, di leen ne nañ bokk ndey bokk baay ñu ngi liggéey liggéey y' a trop d'hypocrites au pays le milieu artistique surtout suma frères qui ñoom ñi nga xam ne tey la le taux d'hypocrisie est très élevé La musique mënoo koy def ba hypocrite parce que li nekk sa xol nga war mu naturel euh, la musique ce n'est pas une compétition c'est une passion donc mënuñu nekkante di reetaanante di alors que en arrière de tout ça c'est le bordel dañuy di bon c'est dégueulasse donc man mënu ma nekk fu dem di au Sénégal alors que say mbokk sénégalais artistes yi dañu de a bokk ndey bokk bay parce que ku ci am rek Sénégal la l'Afrique ni Afrique donc il faut que les gens le savent après affaire bi géej la dafa yaatu ñëpp ci mëna bay sen war am ci jamm mais nañu wañi un côté hypocrite parce qu'ils sont trop hypocrites les artistes sénégalais africains même Wali c'est un petit frère hein c'est un petit frère et un artiste que je, respecte beaucoup il fait son chemin il ngi def mais il ne un mu Il est un il est Il déglu c'est toi le meilleur mu jàpp ne xamul dara mu ngi jàng chaque jour te moytu ñuy koy jay di ko ni da nga koy encouragé mais di ko wax dëgg da nga koy encouragé fii kenn mënu fi dara te ku yaakaar ne mën nga xam nga ne yow boo tëddee nelaw xam nga ne mënoo dara donc c'est un jeune qui a du courage qui a du talent nañ ko jàppale suñu rakk la mu nekk ci yoonam ba pare encouragé ko mu xam ni defagu fi dara mënagul dara continuer de liguer parce que j'aime beaucoup les gens qui bossent le euh, lépp liggéey la recherche la créativité that's it that's all c'est vrai waouh, waouh, waouh. waouh. j'étais là et euh, le but c'était de de donner un coup de pouce et de faire du support parce que nous waroon aux États-Unis donc comme Cheikh Anta les gens étaient là et nous nous est con et ça a vraiment fait plaisir donc l'objectif c'était de rassembler les gens faire ça bi une soirée réussite pour un artiste sénégalais c'est vrai que je suis pas monté sur scène mais c'était pas ça le but j'étais là et c'est ce qui comptait mais il a beaucoup apprécié parce que bi show il est venu me voir ndeysaan jox ma accolade ne ma grand merci si donc shout out to my brother Wali, J'obal gën a rek lépp dina nice inshallah. fils